tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub ñu leen di fay di leen jaare di leen jaajëfal d'accord euh, ñu fekk la tey ci match bu am solo bi nga xamante ni euh, Wally Seck ak Modou Lo ñoo fa war a tey bëggoon a xam teewaay bi ñu ngi leen jaajëfal di leen delloo seen wàccuwaay bon xam nga moom lii rek quoi Waly Seck ak Modou joué woon nañ ci koor gi Waly Seck xooñu gagné ñu mais lii match match match retour bi la quoi mu nekk loo xamante ne nii xam nga Sénégal moo toll fii fooy jeunesse bi devait tiiru nekk ci beneen euh, nekk ci leneen quoi te lii dafay dafay dafay dafay dafay dafay dafay doxal dëkk ndax fii su ma juumalee li ma fàttali ki ne laa moo soon mosoon yàgg na pendant plus de vingt ans li concert amul parcelle kon bu ñu indilee Omar bu ñu indilee fi benn concert indi ñu ko benn Waly Seck moom mbégte la suñu quoi te ñu ngi xaar Waly Seck. tax papa condition bi moo fi nekk wala. condition bi lan la. Ah, trop moo tax ma taxaw ci biti quoi waaw ah, tey ay joueurs ñooy joué quoi. waaw d'accord am na solo euh, ñu wax tamit mhm. euh, moom a nemmeeku euh, mbër yi mhm. moom dama ci sawara wax quoi ndax man pour man boo dëkkee ci quartier bu la chef de quartier woowe si da nga ko ji waxuma nag président de la république ku mel ne Macky Sall dama leen soxla pour ñu waxtaan demuñu fa woon pour nangam pour nangam dafa woon pour joytu suñu ay li nga xamante ne ay manquement lañu te amuñu kuñ koy jooy ku dul Macky Sall kon bu ñu woowee bu demee dina war a wuyu ku yu da nga a wuyu da a wuyu ndax président Macky Sall ku woo wax dëgg yàlla da nga war a wuyu ji quoi mooy président bu fi keneen nekkoon tamit bu wootee day bëgg ñun ñu wuyu ko dañ koy wuyu jiwaat waaw coow li nga xam ne topp na ci mbër noo ko jàngatee. ban façon coow la ci. Euh, ñi nga xamante ne dañuy na ñu mais lu ñuy fi nekk nag ku jiitu moom ñu ŋaañ la ku jiitu ñu ne sa taatu wu sa doq bu nangam bi mais il faut ñu xam ne un président de la République c'est un président de la lu mën a def rek bés bu nguuram jeexee day dem keneen day ñëw mais temps yi dinoo gis ni sénégalais seen ay kàddu seen ay doxalin dafa ñaaw ci ay xëccoo yu détails yu ndaw a ñëpp gëm yàlla xam ne euh, gis nguur yàlla moo koy joxe ku mu ko rëdd sa jëb yi da nga koy doon ala kulli yàlla mais ki fi nekk moom kulli sénégalais nga ne patriote nga da nga ko a jàppale ba keroog mandaam di jeex man loolu laa gëm quoi. ndax gis la euh, ñu waroon a dem. non amul moment gis nga euh, il faut wax leen benn affaire yow tey jii bu dee am nga borom kër wala dara yaa xam wala yàlla mayoon nga wan lor bay mucc lu lay wax yàlla tiif yàlla tiif ba keroog nga yàlla di la muccal contrairement bi dem boo ne ba génn dem ba war a génn àdduna danaa tuddal yàlla ba keroog ngay dog moo il n'est jamais trop tard pour faire du bien nan bàyyi loolu il faut politiciens yi tamit bàyyi ñun Sénégal ñu xam ne ñun Sénégal la ku ne am nga droit faral ki la neex ku neex nga faral opposition ku mu neex nga faral pouvoir mais nan ko def ci yar ak teggin ndax léegi Sénégal kenn xamatul xar kanam ginnaaw nit ñi mën nañoo yàq nit ñi mën nañoo saaga ndey nit mën nañu def nangam mais du loolu Sénégal du loolu Sénégal warul doon loolu te it ku jaakaar ne loolu mooy tax nit ki avancé au contraire da nga ko yàqal da ngay yàqal ki nga xamante ne yaa ngi ci ginnaawam di ko saa di ko saagaal wala nga koy defal nangam nangam déedéet waneel yar ak teggin wax sa programme wala lii laa bëgg def bu yàlla tuddee yaay doon président kenn muus da nga koy doon ndax Macky Sall nag maamam bàyyi fi bàyyi fi nguur gi moomu ko sénégalais yi ko fal bu demee ba leer ko ni sénégalais euh, bëggatuñ ko ñu li ko wala bu yàlla ne nguuram fi lay yem ñu xam ne nguuram fi la keneen ko xam ne moom la yàlla rëdd mu ñëw amul leneen mais kanamu sénégalais nag il ñu wax ak ñoom trop c'est trop nit ñu wax ak ñoom loolu mooy dëgg tey déggul nga fan yee passé ku ne saaga na day Papa Sow ku ne def na pour lan lu man man dinaa taxaw benn ministre dinaa ma kaay utal ma nerf ñi war na xalaat loolu dimanche boo ñëwoon fii dajal naa fi mille personnes yoo xamante ne nii maa xëy ñun ci loolu la ñuy dox ñun ci lu baax la ñuy dox ñun kenn war ñoo gis ci beneen xar kanam mais nit ñi danay diaboliser kuy ut nerf bi kañ doo taxaw ne fàng daaj da ngay làqatu te lan mooy nerf bi booy yi bu ñu taal ngay leen fay léegi kiy taal ak ki fay ku gën doon nerf bi Sénégal yi nan yeewu aussi mais naka ngay déggee papa li nga xamante ni mooy euh, ahlu lamb aussi. waaw ah. critique bu ñu def yàgg nañoo bëgg a gis président. waaw yàgg nañu bëgg président recevoir leen waaye jour bi ñu leen recevoir. ak moment bi ñu leen recevoir. Mhm. dafa mel ni dañoo utiliser mbër yi pour fay coow. non c' est pas la première fois Macky Sall recevoir mbër yi président bu fi ñëw da ngaa recevoir mbër yi président bu ma si ñëw recevoir nga mbër yi Macky Sall amul amul kii bu leen war a recevoir bu leen mën a recevoir at dañuy recevoir. ndax it 12 mois ba mu def 8 mois. exactement léegi. gis nga nit ñi nag bu nit ñi bu naxante. lamb dafa nekkoon amuñu ñu loon arène nationale. Macky Sall dafa la arène nationale. sponsor nag gis nga sponsor. waaye Seck demul ci demul ci président ñëwul ci président sponsor yi topp na ko c'est parce que lan crédibilité am la moo tax. sponsor yi newoon nañ ci làmb ji est-ce que promoteur yi fi nekkoon eh, respecté woon nañ contrat yi initié ak yi est-ce que na est-ce mbër mi respecté woon na règlement yi est-ce que respecté na charte yi il ñu xool loolu sponsor boo gis nag dafa bëgg a jaay ay produit a jaay mais affaire bi du foofu ñi nekk ci biir ñoo xamul mais ñi ci xam na ni amoon na ay manquement yoo xamante ne moo war a sponsor yi génn mais président Macky Sall du ci A léegi lu mu leen da ngay fayeeku mbër mbër bu nekk da ngay liggéey di fayeeku mais yow Macky Sall bu ñu mayee ay kër wala mu fajal ñu yow est ce que yow mi bokk ci làmb waru la yow ku nekk yaa un sa kër ku nekk yaa war a faj sa bopp nan wax dëgg gars yi leen bëgg a teg ci doq état ku nekk yow yaa war a liggéey sa maximum sa kéem laay kattan ba yàlla defal la teraanga defal la sutura ndax changement am ngeen yaakaar am yi des ci nguuru Macky Sall comme ni ko Sénégalais mais lu xala wax jee bari nag fii moom lu ne fàng kenn du daaj li fi def président yëpp jaadan ku nekk liggéey nga nag mais li fi def kenn def ko fi muy ci prison yi mu ci muy ci euh, bi muy ci leneen mu ci leneen ñun ñëpp gis nañu li fi Macky def mais bu nguuram jeexee bu dee 2024 lay jeex mais bu jeexee mu dem ak ay mbokkam keneen ñëw amul leneen mais Macky Sall liggéeyul moom war kenn war a ko wax ci réew mi man nangu naa ñu nekk ci diaspora bi man xamal laa mën lan laa mën laa mën a ñan laa mën a gisee mën ne mën na ne Macky Sall liggéeyul mhm. mooy kii tukki vingt ans wala dix ans ci ginnaaw ñëw Sénégal ki ki tëj kaso dix ans ñu gis génnoo xamul ci biti mm-hmm. ak ki tëdd hôpital wala ki ay bóora bëtam muuru mais nit ñi nan wax fi am Macky Sall liggéey lu mu war a liggéey leneen ñu waaw euh, yi nga xamante ne gis nañu ay mbër def ko ñaawlu wala ñàkk a kontaan ci mais ñooñu ñoo mbëri dëkk parti sax ku mbër moom suñu raq la amul luñ koy wax hmm. bu gisee ni moom moom bu gisee ni fii la war a bokk bu bëggee bokk mu ñëw bokk bu gisee lii boo arrangé ko amu leen suñu la suñu lépp la ñun amul li ñuy wax Tapha Mbeur suñu la woon démb suñu raq la tey suñu raq lay doon suba mm-hmm. waaw am ngeen yaakaar mën rek mooy li mu wax li mu ah, am na fi mbër yoo xamante ne feebar nañu te il faut ñu xam benn affaire ah mm-hmm. mbër bi war a faj mm-hmm. mooy kii mës a kii mës a ki mës a défendre équipe nationale benn yoon sol couleur équipe nationale défendre ko hmm. kooku bu amee jafe-jafe état war na ko mën mais mbëru mel ne Papa Sow équipe nationale mosoo défendre drapeau Sénégal hmm. feebar na état di la faj tegoo ko fenn da wax loolu neex loolay dëgg hmm. tey ku mel ne Doubalès euh, ko jëlee faj ko yoon la Pape Diop Boston ak tant d'autres man nangu naa ko mais comme dëgg assurance waaw mais mais waaw il faut tamit mais assurance ku fi amul oto am nga moto wala am nga loo assuré assurance bu dagg ci 10 000 francs nga ne damaa bëgg ma su ma feebaree su ma nangam amul dama assurance de vie am assurance nangam assurance nangam assurance bi la daggal pour bi la bu jeexee na assurance bi nga xamante ne tey da nga bëgg bés boo feebaree ñu mën laa faj loolu ku ne xam ne ne leneen la feneen nga koy defee nan nga waxante dëgg waaw am na solution euh, bi nga xamante ne amal nañ ko tey ci euh, li ñu war a jooy ne jooy ah président de ñun de di leen wax daal euh, comme ça euh, service euh, étatique yi nañu nañuy ubbil suñu ay buntu jàppale ñu à part loolu amul leneen lu furit mën a wax utal leen arène nationale teg nañ ci ay conditions amul leneen man laa gis amul leneen. mais a gis nañu ku ci ko fi social. waaw ko ñaanal dimbal. waaw keroog gis nañ mu dem ci xamante ne seen i jafe-jafe waaw loolu tey loolu tey loolu tey ñun la war man sa bokk tamit xam nga bàyyi naa bëre te jii dañ ut ñun suñu benn euh, association boo xamante ni ñun nañu dagg suñu xaalis pour ñooñu wala ñu dagg suñu xaalis wala ñu ñëw ñu dagg suñu xaalis pour ñun ndax état noonu lay doxee de booy fay IPRES pour waa retraité la mais fayoo IPRES defoo dara ñu ne Père feebar na ay mbokkam ñoo ko war a fajal faj boppam dañu wax dëgg rek affaire nag dëgg neexul moo ko gënee bu gëneen gisee benn affaire yaakaar ne ne commencé dafa dara mais boo boo préparé sa retraite nag après sa retraite day métti. mais kii tamit Père Maxime Mbergane tey jii dañu ko ne waaw mais Gris bu waxalee askan bi rek man dew moon man dew moon mhm. mais dama ko rafetlu dama ñëw xool li Gris Bordeaux wax seetaanaat ko ma xam ne li li ñëpp waroon wax Gris wax na ko bu Gris Bordeaux wax rek c'est à saluer te ñu ko ci félicité loolu laa ci am lu ma ci wax. kon ñi nga xamante euh, seen bopp mooy lan dama bëgg a xam damay dégg am na dinaa kàddu seen bopp lañ fa demee rek lañ ci a génne. ku mel ni Balla Gaye ku euh, jël na kàddu. Balla Gaye def naa jël ah moon mais def naa jëlul kàddu mais Balla Gaye lan la lan la war a mën a président ànd bi ko xam mooy Gris Bordeaux bi moo koy waxal xëy na ba soo mun audience ak président toogam côte à côte boo xamante ne dina ko président fii am na lii fii manqué na lii fii manqué na lii Balla Gaye bu baax dina mën a wax ak président mais bu ànd ak association président moo war wax moom warul wax. comme lan coow lu mel ni moo ci toppoon ndax gisoo ni tey dañ leen utiliser. ci waaw mais coow nee coow lu mel ni topp leen dañ leen joxoon paas am ay quelques personnes yu am ay ay xëccoo mais bu dul loolu moom dara amul. d'accord sa waa di jaajëfal rek nga xam ne Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk Sénégal moom ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ko rafetal rek te xam ne moom lépp Sénégal la rek quoi ñaan dal yàlla si yàlla doon di jàmm jaajëf ok jaajëf de Guardiola jamu Guardiola nga ma jamal tey Dom Ndeye mais Dom Ndeye tey gaaw ah mais jamu Guardiola mais tey yaa ngi fi ci parcelle. waaw ñu préparé le treize ak Waly Balago nan nga gisee sa équipe tey. tey équipe boo xoolee xam ne Waly day gagné ba ni stade bi mel nii. machine nawetaan sax mosu koo mel. nga xam ne parcelle kon ñu ngi waajal le treize. bu def nii marché gala xam nga kon le kenn du ko waxati. waaw kon ñu xam ne ñu xaar match bi rek. ñu xaar match bi ñu gis depuis bi koor gi jeexa ba léegi sa frère Waly Balago centre du peuple tournée yi mu def yaakaar naa fii ci biir Ndakaaru muy concert yu mag yëpp def di ferme ñëpp kontaan mu des nag parcelle dëpp gi lan nga gis parcelle le boo xoolee Waly allez ok boo xoolee Wally dem na Kër Massar mu mel ni mu dem Linguère mu mel nii nga bu ñëwee dañ koy xaar. boo gisee gala bi mel nii nga xam ne le treize. macha allah mais kër si Guardiola. Guardiola mais avec ce match man sama zor laay topp man kii laay topp affaire waale xoolal xoolal internet bi xoolal yéen commentaire yi affaire waale kii laay top koo mooy sama zor mu ngi noonu defal la neex si moom noonu defal la neex affaire waale yaa laay topp Alors, dans l'équipe de Maïsik, on nous a donné le numéro Armand, Ndiaye, ah, Djiné. Ah, bu ñu jombal nag. Djiné est dans l'équipe de bu ñu jombal, saraf ñu rek. Parce que dégg naa ko mu. Dugg leen, dugg leen. Cheikh boo paree ñëw. Louras. Avis, avis. Et d'un ñëw. ah c' est à ñëw. nous allons accueillir. Ndiobo Xaragne mais aussi Waly Seck ñoom ñëpp dañ ñëw fii rek ngeen di jël ñu football. nice c'est bon. door ci bal bi. waaw boisson baa ngi nii de. boisson baa ngi nii de neex ba bu ko dee. boisson bi moo fas yéene gunge tey artiste yi. yéene gunge. je t'aime yow lay topp yow lay topp dafa am juróom ñaar la. asamaan juróom-ñaar. Poch mais Poch mais Poch. mais Oumar. sedd na neex na baax na yomb na. moom bu boole sa dafa bari. 200 francs seulement seulement. 200 francs seulement. nga seddal sa pour. 200 francs. kese. nga naan lu sedd guy waaw yëf yi moom dafa sedd sax ah xoolal ni yaay gars sedd nañ ko guy. Il est là ce soir pour communier avec sa jeunesse. xam nga mais le message est très fort. vraiment mais li gën a war a ji. war a joxe ci temps waaye dafa jàkkaarloo représentant équipe bu nekk ñaari adversaire mais de waaw man lii lan la. waaw léegi moom lan laay paas parce que man maa joxe ñëpp ñëpp. c'est ça. waaw loolu loolu gars yi tàcc rek bu sëriñ tàcc rek bu sëriñ. ñii passé lañ nekk nee na bu jox ñii lay jox. merci merci encore une fois. voilà merci monsieur le maire waaye nag dañ koy jëndale. waaw. très bien. voilà merci beaucoup d'avoir sëbëri. bi daani sama waay la. jàmm ña jaara bu sub. wala ma se bi jaara.